Euh, sant yàlla bu baax gërëm si Ahmad Bamba di sant sëriñ tax yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ak njabootu si Ahmad Bamba gi fii nag ku ma fa gis dooma laaj lu tax mu fii ñëw sëriñ Basiru sama waajur la sama xarit la sama sëriñ la sama conseiller la ndax lépp lu may dugg lu nekk bala ma see def waxtaan ak moom moom nag képp kese moo tax ma jógee Ndakaaru pour ñëw fii si këram gi bokk ak moom bisub sëriñ Abdou Khadir bi nga xam ne ñoo ko pour màggalandoo ko ak moom te ñi mu koy màggale këram noonu la ñu koy màggal suñu kër ndax sëriñ Abdou Khadir dañu sëriñ Abdou Khadir ñëpp ñun nag mënuñu fay sëriñ Abdou Khadir ndax li mu yokki islaam yokk si yoonu murid ci jitaay bu gàtt bi fi nekk sëriñ Touba xam nañu ko kon fépp foo xam ne ab jullit yaa nga fa tey nga di murid sa xol mi ngi si Touba pour ñëw fekk si bis bi waaye ñi muntu ñëw ñëpp ñu la fasaa leen pour ñaanal leen ñaan sama borom nawet bi def jàmm àgg si jàmm sëriñ Bass nag ay jikkoom ñëpp xam nañu ko ndax boo demee ci kër gi nga xam ne sëriñ Bas jikko bu baax la yore jikko bu rafet la yore ndax nit ñi moom kenn mu leen a boo leen yëgee rek nga am leen te jàpp naa ne sama classe gi foo leen gis mu nekk xam nga ni yëg moo leen fa yóbbu ndax sëriñ Tuubaa laa gëm gëw ma leneen en tout cas ñu ngi koy ñaanal mu yàgg koo taf te yàgg ko fekke te liggéey bi ñu liggéey si Ahmadou Bamba ci Assemblée nationale sama borom ñu si ndam am nañ si ndam mais mu dolliku ndax mooy fexe bu Touba du fay ndox yàlla ma ñu suñu ndam suñu deuxième combat mooy assainissement Touba bi ak ay tëlu yoo xamante ni li Serigne Touba ñaanoon fexe nañ incha allah fa ñuy séddale xaalisu réew mi Touba man see gis wàllam loolu nag Serigne Bass moo ne suñu ginnaaw ñaanal moo ñu jàppale te Serigne moo ko ñor kon kaddu gi yor mooy kaddu Serigne Touba fooyewu ko bu ko fooye woon doo ñu fi gis bu ko fooye woon da ngeen ñu dégg bu ko fooye woon da ngeen ñu gis Serigne bas mi nga xam moo ko yore Serigne Touba lay liggéeyal te mat na ko kon loolu mooy samay tànk ci kër Serigne Bassirou Mbacké mu Serigne Abdou Khadir jërë ngeen jëf